إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين mbokk julit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala moo ñu bind moo ñu moom mboolem xiiwal gu nit ci ñun ci àdduna ak lépp lu ñuy yaakaar ci àllaaxira ci moom dong la mën a jóge jàll waala ñu ngi koy ñaan mu sax di julli ci yonent bi mu yónni woon ci ñun suñu yonent yàlla muhammad mi ñu doon teete di ñu jëme suñu boroom yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy topp ba ilaa yawmi diin mbokk suñu xutba tey bii mi ngi jëm ci naka lañuy def ba bokk ci jaam yi yàlla bëgg yal nañu suñu boroom boole ci jaamam yi mu bëgg xam leen ni ab jullit ci kaw suuf amoo fi lu gën a màgg bokk ci jaam yi yàlla subhanahu wa taala bëgg amoo fi lu gën a màgg am ngërëmal yàlla mucc ci meram loolu moo tax ba dafa war képp ci ñun muy jéem a xool di gëstu di jàng di laaj moo ana yan melokaan moom la jaam di melowoo ba bokk ci jaam yi yàlla bëgg suñu boroom yàlla subhanahu wa taala ñu bari woote nañ ak mbëggeelam ca yahuud ya ca nasaraan ya suñu borom ne leen xam leen ne day su dee da ngeen a bëgg yàlla toppal leen ma sab yonent yàlla bëgg leen loolu luñ cay dégge mooy ndekete jaam bi nga bëgg sa boroom du loolu moom mooy jubluwaay du loolu mooy taxa texe déedéet lii taxa texe kay mooy yàlla bëgg la mi ngi noonu mooy yàlla bëgg la loolu nag mooy jubluwaay bi gën a màgg boo xam ne jullit dafa war a góor-góorlu jéem koo xam mbokk ci xutba bu gàtt bi daan ci jéem a tënk lu jóge fukki jukko yoo xam ni amul boo ciy dëggal lu dul yàlla bëgg la bokk na la ca jiitu mooy li ñuy tuddee al ihsaan ca mooy ngay rafetal suñu borom nee na wa axsinu inna allaha yuhibbu almuxsinin day leen rafetal yàlla day daa bëgg ñay rafetal mbokk rafetal mooy lan yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ak rafetal de yàlla da koo bind ci lum mën a doon ba sax yow mi daja woona ko bi yéeféer di ko rey mu ne rafetalal ni nga koy reyee looloo tax xattaa ci toolu jihaad jullit du dajeeg yéeféer di ko caw ci kanam déedéet suñu borom mu ne fa darba riqa dóor leen ca loos ya jullit du rey ab yéeféer di ko daggate abadan rafetal leen ni ngeen di reyee su ngeen demoon bay rendi xar mi rafetal leen ni ngeen koy rendee loolee bi yonent bi tudd rey ak rendi day wane kon rafetal dara mucc ca la ca jiitu mooy nga rafetal sa digganteeg sa borom te mooy la nga xam ne mooy julli gi ngay julli koor ak makka zakat lu mën a doon xoolal nam gën a selle nam gën a dëppoo ak sunna nga defee ko noonu loolu mooy rafetal sa diggante ak sa borom nga góorgóorlu ba jaami yàlla yi it nga rafetal jëm ci ñoom ña ca jiitu mooy ñu la gën a jege ña ca jiitu mooy say wayjur loo man ci laayalin biir loo mën ci toroxlu seen kanam suufe seen kanam loo mën ci jëriñ leen taxawu leen loolee nga xam ni bokk na ci bunt bi lay jër bi lay jural yàlla bëgg la waaye ki la yàlla booleel muy sa soxna wala sa borom kër nga rafetal jëm ci moom ca mooy nga laayu ko biir ku nekk doon ku dëggu ci digganteem ak moroomam ku nekk jàpp taxawaay bi ma taxaw ci yow mooy naka lay def ba jëriñ la mais pas jëriñoo la rek gannaaw loolu doom yi la yàlla wërsëgal nga am yërmaande ci ñoom la koy màndargaal mooy nga xamal leen seen diine jàppale leen ci gannaaw ba ku la jege ak ku la jege bokk na ci la nga xam ne mooy dëkkandoo ya rafetalal jëm ci say dëkkandoo bu leen lor ci lu ñuy dégg bu leen lor ci lu ñuy xeñtu bu leen di lor ci lenn loo xam ne da leen di sonal waaye loo mën ci njëriñ ngallaway defal leen ko ndax suñu borom yàlla daa bëgg kay rafetal jëm ci ay dëkkandoom ba daan yónni jibril alayhi salaam muy wax yonente bi alayhi salaam waxal jullit ni ñuy rafetal jëm ci seen dëkkandoo loolu lay dem ba koo mën a dajeel ci liggéeyukaay ba koo mën a dajeel ci tukki koo mën a dajeel ci yoon bi nga rafetal jëm ci moom na doon loo koy jëriñ ci alal la loo koy jëriñ ci wax la loo koy baal ci tooñ la même bu doon wax ju neex rek ak la nga xam ne mooy yaatal sa kanam leeral sa kanam sa digganteeg moom loolu sax ak rafetal la bokk na ca ñaareel ba mbokk julit mooy suñu borom nee na daa bëgg muñkat yi wallahu yuhibbu sabirin mbokk yàlla bëgg daa daa bëgg ñuy muñ muñ googee dafa am ñaari wàll dafa am ñetti wàll muñ gi jëkk gi mooy muñ ba taxaw ci santaane yi la yàlla digal li addu ci yow ak li addu ci sa njaboot nañ ko waxe woon sànq ci julli ya koor ya zakkaat ya waaye it njaboot gi nga taxaw ci ñoom muñ ci yar gi nga leen di yar nga la way xamal ni bokk na lu gën a metti bokk na lu gën a jafe yar ak njaboot moo tax suñu borom ne wa'mur ahlaka bi salaati wastabir alayha digalal njaboot gi ñuy julli te muñal ci julli googee loolee ku nekk ci ñun war a xam ni boo bëggee yàlla gërëm la ngal na way fexeel ba bi la yàlla tànnee jël ak njaboot teg ci sa loxo yàlla yëg ci yow ne day guddeeg bëccëg yaa ngi taxaw ngir njaboot gi déggal seen borom jàll waala guddeeg bëccëg yaa ngi taxaw ci lépp loo xam ne njaboot gi dañ caa jëm ci neexul yàlla loolee mbokk xamal ni ci melokaan yi yàlla subhanahu wa taala gën a bëgg la bokk mu bokk ci it wàllu muñ googee mooy muñ sori bakkaar yi muñul ma alal ju lewul joo moomul bu ko jege soxna boo xam ne daganu la bu ko jege góor goo xam ne daganu la bu ko jege moytul ma lépp loo xamee ne nii islam daa tëral ni lu xaram la njaaloo gaag carte gaag rey nit gaag lu mu mën a doon muñ googee ngay muñ loolee mbokk dalay dural sunu borom yàlla bëgg la waaye bokk na ci it mbokk julit yàlla bëgg na jaamam yi nga xam ne dañuy muñ heure bu yàlla tegee ci ñoom ay nattu natt yooyee bokk na ci ak ñàkk mbokk ñàkk ci lu tar la lu yàlla di nattoo ab jaamam la waaye nga la waay muñ ko muñ ko rafet téyel sa bopp bu bul dem ci lu xaraam bul wax lu ñaaw gannaaw ba muñ bokk na ca yàlla jël say jegeñaale sa doom sa soxna sa xarit sa ku la amaloon njëriñ lool suñu borom yàlla ñoo jël ko ngàllawaay muñ ko muñ ko rafet naka noonu itamit borom bi subhanahu wa taala dana nattoo jaam bi ci wéeroon mu xëy-xëy teg la ak wéréti bokk na lu metti mbokk julit ak wéréti doomu aadama tëdd ci lalam bëgg a jóg munte jóg fanaane metit loolee mbokk ay natt la yoo xam ne ñëkk a muñ muñ ko rafet da leen di jural suñu borom yàlla bëgg leen bokk na ca mbokk julit ñetteelu melokaan bi yàlla bëgg mooy ñi nga xam ne dañoo ragal borom bi jalla wa ala suñu borom yàlla mu ne inna allaha yuhibbul muttaqin mooy ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla naka la ñuy ragal yàlla mbokk ki ragal yàlla mooy ki nga xam ne du jóg mukk jëm ci jëf bu mu war a jëf lu dul xool na ndax lii ngërëmal yàlla moo ci nekk wala merum yàlla lépp lu muy wax ndax ngërëmal yàlla moo ci nekk wala merum yàlla mboolim dundam da koy saytu di ci xool baa di def lu neexul yàlla muy dëggal la suñu borom waxoon ne qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin mooy man day samay julli samay rendi sama dund ak sama dee yépp dama koo jagleel yàlla la sharika lahu wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin yàlla bokkaale wu ma ko ak dara xam naa it li ma yàlla digal mooy loo mboolem lu aju ci sama dund bu ma ci def lu dul lu yàlla gërëmul mbokk ñu mel noonu ñoom ñooy ñi ragal yàlla ñeenteel bi ñu yàlla bëgg mooy jaamam yi maandu wallahu yuhibbul muqsitin waqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin maandu googee mbokk mooy lan mooy heure booy wa atte nga maandu heure boo jiitee njaboot nga maandu heure boo nekkee ci mbooloo nga maandu heure booy seede nga maandu même bu doon te ne da ngay seede sa kaw bakkan wala ngay seede ci sa kaw way way jur maandu tegoogee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñooñu nga xam ne day dañoo maandu woon te maandu te moo tax asamaan ak suuf taxaw yowmal qiyaama yàlla dañu leen teg ci ay tribune leer ñu jege borom bi lool ngir ne yàlla bëggee seen jukko boobee mbokk juróomeelu jukko boobee bokk na ca la nga xam ne mooy baril ak tuub di dellu ci yàlla inna allaha yuhibbu tawabin yàlla dafa bëgg jaam yi tuub ca mbokk julit yàlla defu la malaaka fokk léeg-léeg ngay tarxis di juum ci say jëf ci say wax gaawal tuub dellu ci sa boroom même bu dee yëgoo ne yaa ngi ci bakkaar footalu del takkoog jéggulu yàlla yonent bi alei salatu wasalaam mu ne ey yéen julit ñi day leen jéggulu yàlla di tuub di dellu ci moom man day bés bu nekk danaa tuub di dellu ci yàlla lu mat téeméeri yoon loolee kon nga la way taqal ko sa làmmiñ mooy rabbi ixfir li wa tub alayya yàlla jéggal ma nangul ma ak tuub astaxfirullah wa atubu ilayhi maa ngi jéggu yàlla jéggulu yàlla di tuub di dellu ci moom yàlla dafa bëgg jaamam yi nga xam ne dañuy tuub mu séddili koo ci ñaari mbir tuub goo xam ne tuub ak farata la bi nga yégee def nga bakkaar ak tuub goo xam ne nii tuub ak naafila la te mooy ngay dellu di jéggul yàlla di toroxlu ci moom même bu dee yégoo ñu def fa bakkaar juróom-benneel bi mbokk julit mooy saxoo ak laab wallahu yuhibbul mutahirin wa yuhibbul muta mutahirin suñu borom yàlla subhanahu wa taala dafay bëgg jaamam yi nga xam ne fu ñu toll dañuy laab laab googu am zahir ak baatin laab gu njëkk gi mooy laabal sa xol bi bu ci bokkaaleeg yàlla kenn bu ci màggal kenn ci kaw yàlla bu ci gën a bëgg kenn ci yàlla jalla wa ala waaye laabal sa jëf yi moytul shirk moytul ngissal moytul yëg sa bopp gannaaw ba it nga laabal sa jëmmi ji ca mooy moytu lépp luy sobe buy taq sa yaram wala sa yére waaye it di ànd ak njàpp heure bu jàpp jotee di sangu farata heure bu sangu farata jotee ñii melokaane nii day suñu borom yàlla subhanahu wa taala da leen a bëgg juróom-ñaareel ba mbokk julit mooy ñi nga xam ne ci yàlla rek la ñuy wékku mbokk doomu aadama dund gi ñuy dund daa bari ay jafe-jafe jafe-jafe yooyee nag la nga ca mën nga cay def li ci des nga wékku ci yàlla ca mooy tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah ab julit du jàq mukk di saalit di jàmbat di wax lu bon di dem seeti ay njabarkat wala di dem dugg ci lu xaraam déedéet day wékku ci yàlla heure bu feebar bi tare wékku ci yàlla heure bu ñàkk ñëwee wékku ci yàlla heure bu jaaxle amee wékku ci yàlla heure bu nekkee ci kanamu bépp jaamu yàlla iyaaka naabudu wa iyaaka nastain yàlla yow dong la ñuy jaamu yow dong la ñuy demee ni ko juróom-ñetteel bi mbokk julit mooy jéem a sax di rey sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca mooy julit sa lépp nga jéem koo dëppaleeg sunna say julli say koor heure booy lekk heure booy naan heure booy génn heure booy solu amul lenn lu dul sunna jàngal na le nii nga ko war a defee nga saytu sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko dëppalee ak la nga xam ne mooy say mbir suñu borom subhanahu wa taala nee na bu dee ne da ngeen bëgg yàlla rek fattabi'uuni yuhbibkumullah ku topp yonent yàlla bi yàlla bëgg ko mu bokk ci juróom-ñeenteel ba mbokk julit mooy doomu aadama bi doon koo xamee ni nii dafay bari lool ay naafila baril ay naafila yonent bi alayhi salaam nee na yàlla day nee na sama jaam jegewu ma lu ma gën a bëgg ci farata yi gannaaw loolu nag du deñ di sax ci ay naafila ba ma bëgg ko bari la lool njàngum alquran bari la lool génn ay sarax bari la kooru naafila del taxaw di julli julli naafila rawatina xaaju guddi nga jóg jàkkaarloo ak sa borom loolee dalay jural sa borom yàlla subhanahu wa taala bëgg la boole la ci jaamam yi mu bëgg gannaaw ba it mbokk julit la nga xame ni ni moom mooy fukkeel bi ku nekk war caa bàyyi xel mooy nga suufee ci kanamu jaamu yàlla yi doon koo xam ne da ngay bëgg julit ñi bañ yéeféer yi suñu borom yàlla mu ne ee yéen arab yi su ngeen delloo gannaaw danaa indi ay nit ñoo xam ne dama leen di bëgg ñu bëgg ma seen màndarga mooy lan mooy azillatin ala almuminin aizzatin ala alkafirin dañuy doon ñuy suufe ci kanamu julit ñi julit mooy kiy bëgg julit julit mooy kiy jël julit def na boppam mbëggeel googee ngay bëgg sa mbokk julit te yàlla rek a tax amul kenn kuy bëgg mbokkum julit te yàlla tax lu dul yàlla bëgg ko loolu tax bokk na ci ñu yàlla di keral ci ca keru arsh yowm alqiyaama rajulaani taxaaba fi llah ñaar ñoo xam ne yàlla rek a tax ñu bëggante amul benn intérêt àdduna yàlla rek a tax ñu bëggante heure booy bëgg jaami yàlla yi te bëggoo leen lu dul ne da ngaa yëg dañuy jaamu yàlla loolee mbokk da lay jural la nga xam ne mooy mbiggeelug yàlla mbokk lii fukk la yu ñu jëlee ci yeneen yu des waaye jàpp nañ ne yi amu ci benn boo xam ne da nga ko matal lu dul da nga bokk ci yàlla bëgg mbokk yàlla bëgg la mooy la nga xam ne jubluwaay yi jullit bi gën a màgg yàlla bu la bëggee dana la may la nga xam ne mooy xikma ba sa mbir yépp yàlla da koy yéwénal yuslih lakum amalakum bu la yàlla bëggee yàlla dalay may ar rida te mooy da ngay daal di gërëm ak ñàkk dootu la jaaxal feebar dootu la jaaxal amul benn problème mu àdduna bu lay jaaxalati gannaaw ba nga xamee ne am nga mbëggeelu yàlla subhanahu wa taala mbokk yàlla bu la bëggee dalay may ak doylu yàlla bu la bëggee dalay may la nga xam ne mooy jaami yàlla yi bëgg la yàlla bu la bëggee dalay yombalal ak jaamu dox sa digganteeg li yàlla tere loolu tax yonent bi alei salaam ne yàlla mu nee na su ma bëggee sab jaam may doon ay noppam may doon ay loxoom may doon ay tànkam su ma ñaanee ma may ko su sàkkoo ndimbal ma xettili ko looloo tax ba mbokk jurit góor-góor la ba bokk ci yàlla bëgg moo gën nga dajale trésor yi milliard ca banque ba moo gën saw tur wër àdduna moo gën lépp lu mën a doon loolu nag lii ñu leen wax ay sabab la ca la koy mottali mooy ngay ñaan foo mën a toll ñaan yàlla mu boole la sa xol bii bu ci bëgg lu dul yàlla ak la nga xam ne dalay jegele yàlla loolu la ab jullit di ko ñaan bul bëgg lu dul yàlla ak lu lay jegel yàlla bañal ma lépp lu safaanoo ak la nga xam ne mooy ngërëmal yàlla lii day képp ko ci sax insha allah da nga bokk ci jaam yi nga xam ne moom la yàlla bëgg yal na yàlla wërsëgal ñu bëgg ngëm yàlla yal na yàlla taaral ko ci suñuy biir xol yal na ñu yàlla boole ci jaamam yi mu bëgg yal na ñu yàlla boole ci jaamam yi muy teral àdduna ak alaxira yal na ñu yàlla bëgg loo lépp lu mu bëgg yal na ñu yàlla bañ loo lépp lu mu bañ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين